semaine bi eh, da nga occuper les devants de l'actualité eh, ngeen euh, introduire des recours euh, contre deux candidats euh, issus eh, issus de la coalition Yewwi Askan Wi Bassirou Diomaye Faye ak ki nga xam ne moom mooy moom mooy Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Dièye ngeen leen di reprocher Euh, ay euh, ay lajj selon vous ay lajj lajj yu bëri euh, concernant leur appartenance à, au parti dissous euh, ex Pastef euh, di leen reprocher ne dañoo produire euh, de, de de de fausses informations au conseil constitutionnel alors c'était un coup politique ou amoon ngeen vraiment yaakaar ne conseil constitutionnel doon na leen doon topp ba rejeter li nga xam ne moom mooy seen seen candidature yi waaw euh, xam nga nag euh, man euh, yàlla daf ma may ma amee ñaari mbubu mbubu politique ak mbubu avocat may wax ne benn boo ci jël rek duma ci ku wàcc bees donc yooyu suñ koy def du coup politique dañ koy def ndax dañu amoon yaakaar ne li ñu fu ñu ko teg dëgg la en tout cas dëgg la ci ñun waaye xam nga ñun avocat dafa am lu ñuy wax Euh, ñu koy wax ci latin res judicata pro veritate habetur mooy li ñu àtte mooy dëgg kon jaakaaroon euh, nañu ne que li ñu li ñuy mbëbët am na fu ñu ko lal fu dëggu dem nañu euh, ak fulla ak ak ngëm ak yaakaar ak xam-xam waaye ba ñu demee tribunal dafa ne conseil constitutionnel dafa ne àndul ak ñun kon li conseil wax mooy dëgg waaye du tee euh, su doon dañ ko war a defaat dañ koy def ndax dañu gëm ne lu toll ni élection présidentielle euh, mënuñu bàyyi mu demee ne nu ko ñëpp bëggee may wax ne euh, suñu jàppee ne dissoudre nañu nga jël parti nga tas ko soo tasee parti war na am lu ciy topp mënoo tas parti ñooñu nga tas seen parti yoon ne lenn rek leen yoon may mooy ñuy def ñu dem tribunal mayeetuñ leen ñu def politique lu dul ñu dem tribunal ci di atte liñ leen tas kon ñu jàpp ne euh, fu ñu ko tegoon dëgër na waaye loolu amatu ci solo dem nañu lajj nañu may wax lii li am solo Sénégal mooy ba ñu demee conseil constitutionnel du ñun rek ñoo dem dem nañu Thierno Alassane dem na ñi lajj ñëpp ñu ci ëpp dem nañu soo gisee euh, dogal bi conseil constitutionnel def presque fukki nit ak juróom wala ñaar fukki nit ñëw nañu taxaw euh, dem ci conseil di fa di fa di fa di fa lay ba ñu demee kenn ku ci nekk conseil constitutionnel tontu na la kenn ku ci nekk amul kenn ku fa dem ca dëggante madame Aminata Touré ba ca euh, kële Ousmane Sonko nga jaar ci ci des lépp kenn ku ci nekk la nga doon wax conseil constitutionnel tontu na la te amul kenn ci ñoom ku mën a taxaw tey ne la mu bëggoon a layoo tere nañ ko ko amul kenn ci ñoom ku taxaw ne tontuwuñu la bokk na ci Amadou Ba dem na am na lu mu doon ñaxtu ñaxtu na ko tontu nañ ko lañ ko tontu nangu na ko parce que aussi loolu mooy. Euh, yoon loolu mooy démocratie loolu mooy république donc ñun lañu ñu dogal euh, nangu nañ ko ñuy wax ne loolu aussi mooy Sénégal loolu mooy démocratie loolu mooy justice parce que noonu la ñuy respecter justice may wax ne conseil constitutionnel bi moom mooy wax kan moo mën a bokk ak ku mënul bokk moom lañ ko jagleel waaye yemu ci loolu ku falu ak koo mënti doon képp ku falu président de la république laataa ngay toog ci fauteuil bi faw nga jaar ci conseil yu ko waat parce que ci kanamu conseil ngay waatee kon yomb na tey ñu xarab leen waaye ku jàlloo nit ala kulli àll ak fu mu mënti jaaree balaa ngay nekk président il faut nga taxaw ci seen wet ñu toog ne la taxawal nga taxaw ñu ne la yëkkatil sa loxo nga yëkkati sa loxo ñu ne la waatal nga waat ñu lay soog a wax ne nangu nañu sa waat may nañ la nga dem euh, toog ci sa fauteuil soo ko deful doo nekk président kon war nañ ko respecter.